waaw mais alaaj Fadam ñu ngi lay ziar. a ah, mais Kousou Bakary. alaaj Fadam. Kousou ci loo nekk. ñu ngi nii rek. yaa ngi am jàmm Kousou Bakary namm nañ la. maa leen raw ñu ngi am jàmm bu baax a baax a baax. dégg nga waxtaan wi yëpp. waaw. tuuti bi tafaakaan ñi nekkoon di raay wax ji. moo tax xam nga live bi léegi. su nit dugg see dama koy laaj li waxtaan waxtaanee lépp lan moo la ci gën a intéressé pour nga wax ci. waaw Kosu Bakary lan nga yaakaar ne Tapha Kandji da doon raay wax ji ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu Sène. Ibrahima Diop bàyyil di dugg ci live di déplacé wu del toog benn place di taal lumière muy leer ñu xam ne yaay promoteur. Hmm. Hmm. benn ngi noonu ci promotion la bokk. Hmm. léegi Balla Gaye dégg gis nga doomi aadama am na fooy toll sa jom dafay dem surtout boo yëgee naagu. Balla saa bu waxee na champion la champion day fekk nga yor lenge yi ci sa loxo yurutut lenge yi Balla géej naa doon champion dañ ko wax te dëgg baa ngi noonu hmm? bëgg nag te nga bokk ci stafu Balla li ko xañ ci làmb laaj bu ñuul baak bu ñuulul baak bu weex baak bu verte baak lépp ci yem tolloo lañ fi gudd yoo xam ne dañ naan tey dugg ci wa Casamance do ci genn na fexé nak ba wat ci ngew-ngew bobu lo lay wax hmm ñu ñëwaat nak ci plan personnel hmm. manam vie sportif personnel hmm. Balla Gaye dafa wàcc vie sportif professionnel nan la Balla Gaye wàcc vie vie euh, euh, sportive professionnel ça veut dire que liko war du ko def mu day baye ba ñaan kët ni jonn mu ne da koy def léegi lolu dóoroo kenn sa bop ngay dóor ndax takusaan bu ñëw bu ne say supporter utal la ay lay kese waaye yow sa jëm bopp xam li nga war a def defoo ko bala nga il est devenu fainéant hmm? waaw lay wax ji nañ ko ko wax rek mu xam ko carrément léegi nag boo fi nekkee di di yëkkati mbagg di yëkkati bopp non ma nga baal maa fi jëlee diw baleen di wax moo fi jëlee yëkkani baleen di fi wax loolu moo fi jëlee xam nga lu tax. Hmm. Yékini bañ ko fi jëlee sax il était en forme maanaam moom il était sportif. Balla Gaye 2 bi muy daan Yékini Yékini bu pare la daan. daan Yékini sportif la daan. kon hmm, hmm. dans le domaine sport du gàcce. xam nga la mooy gàcce. ñàkk a entraîné encaissé million ñëw ci géew gëmloo si supporter na yaay daan ñu daan la loolooy gàcce bi. loolu tax Boucher Ketchup mënul wax. loolu tax keneen ak keneen mënul wax loolu tax bala gay neexut a défendre nañ fàtte li fi Balla Gaye defoon jamono jii la ñuy wax képp kuy signé contrat demal nga entraîné ji fullaak fayda boo daanoo ñu xam ne daanu nga mais daa defut li war. jàpp nga ne Balla Gaye de date bii ñu ko jox nii mënu ci entraîné ba jekk ci combat bi contre Eumeu Sène. si nee naa la à deux mois trois mois Balla Gaye mën na cee entraîné. bu leen fàttali ne Balla Gaye Boy Niang Balla Gaye mi ngi entraîné après jàkkaarloog Boy Niang <laughs> donc lu bon bon bon Balla indi na soixante ça bu fekkee ne nit ku sérieux ku bëgg combat bii mu jëm la xam ne Eumeu Sène moo man déjà amul bu la daanee ñetti yoon ma kookoo man déedéet Eumeu moo njëkk daan moo man mu daanaat ko wan ko maala manaat lu ko daanaatee mooy beneen maala man mais maa ko man fii munuñ fee wax lenn ba rafetal ba rafetal bu dee ci bëri maa ko dàq bëri bu dee ci xeex xeexu ëmmaa gën a jaar yoon xeexu balla te looluy dëgg bi wan nañu ko ñaari takkusaan yu bokkul ñaari xeex yu différent benn bi da xeex yor doole doon sën ñu takk la balla ca kaw munoo ci génn bañ taxabal la nga toog beneen bi nga ñëw daal di wax ne euh, appartement bi sol na ndox fekk ni yow ya waxuma la yow yow soloon ndox la yaa sol géej ñëw ñu wër la pukk pukk yi ne daan la bii mooy troisième bi bu fekkee ne jom ji nag dafa dem bay boo mu jëliwaat ko ñëw ci combat bii xam ne combat bii mooy combat wu jom dëgg du combat wu waa de du combat wu amateur du combat wu supporter combat wu Balla Gaye moom ci jëm boppam champion bi muy revendiqué doomu duubal lees bi muy revendiqué moom la war a ñëw wane te bàyyi caaxaanam yi mu nekkee looloy nan la Balla nek ci caaxaan ci waaj man ma comprendre ne yow Balla nga nek ci nga nek ci lamb ji yor état de forme bu graw da ngay am contrat da ngay am combat mbeur sax mbeur bi xamna bu ñëwee daal xamna nit ñi bëgg la lamb jox la bop kulli reporter bu yor micro bu dé wax Balla sax da na Gaye dé le lion de Guédiawaye non lañ ko wax ndax lan

la ca waroon a def defu ko ci mais lan mooy xew après cinq ans ci topp 2011 ba léegi Balla Gaye ñëwut ak état de forme bu nit ñi xam. mais Balla Gaye 2 ndax Balla Gaye 2 bii ngeen di wax ci moom en tant que ay professionnel mën naa jotaat boobu ci bu baax bu njëkk. nee naa la Alaaji Fadam Balla Gaye lam daan bëree avant état de forme moo koy permettre mu bëree ko soo amul état de forme mosu koo mën a bëree kañ nga gëj a gis mën a bëree Balla Gaye dañu waxante dëgg. bi mu am état de bu baax. waaw kon jeex bi muy daan yëkkani sax da daan forme boobu ni mu daanee yëkkani technique la moo ci technique ñaari dëxa yu doon bëre nag nag ku ci déplacé wu daan loolu kese la du woon leen ak lan ampleur roi des arènes loolu dong la woon ah fii nii combat bi boo ko reculer waatee teg ko ci ngay comprendre ne ce gars là y chose bu comprendre am na fooy toll ci sa bi yàlla da lay teg loxo am na fooy toll ci sa bi yàlla da lay ne la hey yaa ngi doole yaa ngi xaalis yaa ngi mun ay ñaanal léegi nag gëmal sa bopp nga dem c'est que moo lay wax koo fi dégg ñu naan la da am fit dañ koo montel fit mbër yi ci am fit bëri wutte balla bu musaana dong li ñëw parce que man ba tey damay redouté ndax balla gi am na fit toujours damay redouté toujours damay poser cette question là ma ne c'est normal bu fekkee ne sa baay dafa wuup làmb ñu naan doomi duubal lees doon champion fépp kenn mënu koo dëj ngay dajeeg doomi baadoola boo xam ne nii làmb maanaam bërëm yaatuwul yenn yaatu yi tey luy xew nga yàgg coow li coow li rek kese rek Balla Gaye da ci am fit danaan mbay maay doomi Double Less te combat contre Boy gis nañ ko mu joué ci plan boob mais plan bi muy joué ak photo yi ñu taf CNG feeñut ci combat bi pourtant parax paraxee eh, lambam contre Eumeu bu njëkk ba ak deuxième combat bi ak contre Boy Niang parax paraxee bi muy parax paraxee ni nga yaakaar ne loolu est-ce que ci fit la bokk wala da ngaa mën a bëre Sénégal ñoo koy jël ne da ngaa mën a bëre non mais fit la bëre day ñëw ne ne nañ fi jóge mais gis nga lamb dafa laaj xel dafa laaj calcul ndax boo dégg ñu naan mbër daa mën a bëre mooy mbër bu mbër bu xam kañ lay song kañ lay jàpp kañ lay bëre kañ lay daan loolooy wax kon Balla bu fekkee ne dafa bëgg confirmer champion na dem entre entraîné ji te bàyyi caaxaanam yii léegi nag bu dee jomam daa dem kerew ko neex a tëdd ci njoowaan dund lu neex mais su ma waaj juste bàyyi bëri bi dem def li ngay def kenn du la ci ndax nag li fi jot a xew na fi ba pare ah li des ci carrière nag mooy yàq Balla gay champion bañ doon dégg finalement cim la ñuy cim ay supporter am ñu ngi koy wax ci seen biir cim. waaw waaye de day weere quoi layal lañ ko képp ak peeru lay Issa Pouye daan na ko ñu lay Eumeu Sène daan ko ñu lay Eumeu daanaat ko ñu lay Bombardier daan ko ñu ko ñu mais attendez un moment donné si supporters yi xamatuñ lan la ñuy teg ci taabal bi kon moom moo war moom moo war a génne si say seen supporter ci guddi gi nekk nii dem entraîné ji te bàyyi jaaxaane yi bala ngay jeune nga xale bu ndaw nga li la dese ci làmb bëri na barki démb yaa ngi toog ak Eumeu Sène di valoriser Eumeu Sène loolu ki ñàkk xalaat kese la bokk bëgg Sénégalais yi na kii moo baax déedéet da ngeen bu combat amul valoriser teg ko fële boo demee ba takk sa ngeen mën a teg ok amul problème mais vous êtes des adversaires loolooy wax di wala gars yi ñuy jaawale yu bëri alaaj fa Bakary yaakaar naa ne pour Balla Gaye mën a jotaat boppam ci wàllu làmb ndax gis naa nga ci insisté gis naa ñuy insisté ngay insisté ci Balla Gaye numéro 2 bu war a jotaat pour moom 100 pour cent mais Balla Gaye numéro 2 ndax lii des ci làmb ji nii war na cee mën a génn Sénégal dem préparer ci ñëw contact ci ndax loolu temps bi may na ko ko wala déet. làmb ji bi juillet. waaw. ah ñu ngi ci mois d' avril. mai juin juillet trois mois moo ci des. buy génn deux jours la koy jël mu yegg États-Unis wala mu yegg. France wala mu yegg Canada wala mu yegg fene na xam li ko war te bañ a wax luñ koy def defloo gis nga gone day yem ci kudd ñu ko ci gay soo doonee punkalum jëm xam ne da ngaa am combat xam ne lii la la yàlla nattoo mu doon ci sa ci nga tekk ci la nga déggee daani boo demee jël ay coach ñu lay entraîner doo choisir loo bëgg def ak loo bëggut a def doo seen boos moomoo leen juróo leen jëndoo leen bu dee xam-xam ñoo la ko ëpp fuuf ci domaine boobu Balla kenn waxu ko kaay bëri dañu ne ko eh kaay entraîné wax kon na xam na ne entraînement moo ko war mu dem France ak mu toog Sénégal yëpp na respecté coach yi nga xam ne nii ñoo koy entraîné te coach tamit bañ di wàcce seen ni dëgëre ndax laan Balla Gaye la déedéet nit la ne yow kenn ku ne da nga am destin kii destin bëri la yow sa destin coaching la nga valoriser sa bopp bu ñëwee nga fermé wu ne ko eh maam lii la ñuy def waxtaanuma kafuma foowuma réewuma lijjantewuma yaay kan sama xam-xam laa lay jox te ci nga war a te moo lay jàppale ci say combat il a qu'à le faire that's it damay wax ne ay coacham ñoo des. coaché Balla Gaye yombul. ndax lan mbër mu yëg boppam la. Hmm? waaw coaché ko yombul mbër mu yëg boppam pour nga coaché ko boo moytu da ngeen xuloo te bu ngeen xuloo kenn ko ne day dem seen koy wékk. Non, maman est champion. Deux champions, tu T'es pas un champion. T'es plus le champion. T'étais champion de woon. Mon bi doo champion. Nous on te deux. ex champion de femme, c'est ex jabar ni ma Non, le ex champion ex champion de nan la Balla du dougué ci classe. Gris Bordeaux rek <laughs> Hein? Hein? ah ben oui Balla na lay duggé ci Dans daan pour do kessé Balla gay, calaf yéen a ngi koy fàttali. demi dégg Balla gay tenacité Balla gay, rapidité Balla gay. le lion de Guédiawaye gaynde ki du la may sax fo xalaté ñëw indi doole ju wër bu sukkee nga gis ndomba baaj may le terrain may le terrain tërë militaire mu leer la boy bi il est déterminé mais maintenant Balla gay bi ñu gis ni? c'est plus proche de griyanké que quelqu'un de déterminé loolooy wax waaye nag alaaj fata mhm. lii yëpp xam nga la moo koy créé mhm. am tourage ak ñi la wër da nga jàpp ne bala ànd ak Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye da koy convaincre ci la vie est belle Na Aziz Ndiaye du mbër donc dans le plan business Balla dana fort dans le plan kaa dugg ci clim Balla day fort oto bu tooy da ciy neex kër gu rafet Balla da ciy baax na ci moom mais pas boo amee période combat c'est benn point laa man. Mm-hmm. pour Balla Gaye jotaat ci làmb. Mm-hmm. jotaat niveau contact bi mu amoon. Mm-hmm. jotaat niveau xeex bi amoon ak man bës te loolu lépp Balla Gaye bëree man ba sama coowu lamb bi yëpp mu ngi basé wu ci Balla Gaye nekk ci état de forme waaw moo tax man la jombee dem bu jom bi ñëwaatee dana takk ay dàllam comme ni ma laan daan waxee kenn du koy yee mooy yee bopp du fanaan néegu buri du fanaan ci kaw terrasse du fanaan ci kaw lal bu nooy Balla lépp lu mu war a xam moom moo war a défendre papa ji c'est que nee naa la am na fooy toll da naan sa lépp benn mais non dafa am woy juru góor boo xam ne dafay bàyyi woon am woy te way boobu noonu Balla moo ko war a mën a défendre du Sa Thiès. lu tax nga ne Balla Gaye moo ko war a défendre du parce que jamono jii bàyyi ji dund ci Balla la ko gën a wékk. Balla ko siggil ci kanamu moram. Balla ko defal loo xam ne nii fekk mi ngi dund ci kaw suuf. gaa la ngaa mun na ci Sa Thiès. d' accord seen way juru góor mais faw ñu bàyyi xel ne rek Balla faw mu corriger li des ci làmb ci

neexutu dégg nag ndax boo ko dee wax nit ñi ko bëgg toujours dañuy flash di kii mais man xam nga loolu yëngulu mais la réalité des choses mooy gis nga li may wax ball noonu laa koy waxee ci live bi noonu laa koy waxee fépp mais Bakary Bakary loolu nga wax dafa am solo te yaakaar na ne nit ku baax ko mën di gis mu ah, mu réussir ci àddunaam rek ko nangu critique lay doon na mhm. bala nangu na critique surtout Bakary critique ko Balla xamna même bu doom fi sax Balla même vocal sax dañuy waxante Balla xamna ne man ni laa mel je dis ce que je pense kon na xam rek wallahi ay ñoom Thierno Gueye ñew ñu noonu yëpp wax la ñi rek li ko manqué dëgg mu dem wat géttam teg leen ci wetam teg leen ci condition bu baax bo meune fay 30 millions euh serigne ka yoral yoreel bouteille am set am yiw ci moom la mën a yokku te gàllaaj ga bokkut ak ki nga xam ne barki démb moo xale bu jigéen bi ñëw fanaana ah. loolu bëgg a wax ah dire que <laughs> Balla Gaye yooyoo rek ay yooyoo rek ñëw ci làmb ji <laughs> Fadam xamul lu bëri ci mystique de mais ma li ma leer ba leer mooy njàpp moom lu am solo la ci làmb mystique ka la koy yoreel am na set ga war a set am na yiw ga mu war a yiw lu lay jàppale lay ci làmb loolu moom leer na ma yàlla. dégg naa la bu baax. léegi nag boo àndeek nag ay yoyo ñu ñëw ci làmb ji koo ci jox micro mu dàq laa xotteeku xamul dara ci bëre nga jël ay galaaj yoo xam ne nii boo leen ko joxee sax balaa balaa muy la buy xool galaaj galaaj ji toj ah <laughs> mbër mbala dañ ko yàgg jàpp ci biir géew loolu yàgg loolu am na solo loolu am na solo mais boo amoon kàddu goo xam ne nii moom la ngi tëjee live bi ci Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène yan kàddu ngay tëjee. Eumeu Sène dellu ca la ne woon rek loolu laay waxaat rek Eumeu Sène xam nga mu neex bokk ci meeru làmb yi yi nga xam ne bu ne am nañ ko waaye jàppal ni Eumeu fi mu toll nii ci làmb mooy inverse Balla Gaye xam nga foofu gars yi bàyyi ci xet am na calcul boo xam ne alaaj faram gars yi duñ ko calculer xam nga bal bal calcul la. ëmën ni mu mujjee ci làmb loolu la Balla war a mujjee ci làmb waaye ëmën ni mu njëkkee ci làmb moom lay Balla di mujjee ci làmb jamono ji xam naa yaa ngi mm-hmm. tolloon na ci phase boo xam ne nii moog suuf si ay nday lañ. jamono ji Balla moo doon moog suuf si benn lañ arène nationale moom xaw ma ko ko waaye da koo ndaylee Balla direct kon. Hmm? phase boobu booy xool ëmma fi muy mujj booy xool moo dàq fuuf fi Balla nar a mujj sérieusement kon bala loolu lekk war na laa mën a yee war na laa mën a yee nga dem ci beneen level. Hmm. nga Balla bu taxawee ne Lamine Golo mooy coach damay poser question wala su ma déggee ñu naan Balla Gaye kenn du ko conseillé ci làmb sànq maa ngi digg Tafa Kañ. mais ko wax. da nga contre da nga contre ni Lamine Golo nekkee coach Balla Gaye ci làmb. waaw mais Lamine lu mu xam Lamine Dola xamu dara mais Lamine Dola du coach Lamine Dola du coach mais alaaj Fadam est-ce que nii xam nañ lan mooy sensu coach du tëyal mbër mi du tëyal mbër mi ay bagage Lamine Dola coach wut Balla Gaye du coach Balla Gaye du coach benn mbër biir géejo waay na leer. Hmm? mais daa xam luy coach lan mooy coaching. mais gis nañu Lamine Golo mooy indi ci xale yi nekk géejawaay Balla Gaye bi bëri mooy tokki sées bi mbaru géejawaay bu ñuy bëri moom la gis mu tokki sées bi. loolu loolu loolu la ñuy wax meuble. meuble. looluy meuble. loolu dañ koo meuble. xam nga meuble dafa am ak coach coach da ngay wuyoo coach am dayooyu coach yor xam-xami coach xam sa mbër noo koy préparé mais Lamine Golo du coach mosul doon coach xanaa kay njëkk ak teraanga ak sac kese la ko fi Balla bàyyee ñu waxante dëgg mais bal li mu def ba balayee ñeneen da koo waroon a balayee rek tout simplement mais parce que sert à rien pour Balla Gaye moom Lamine Golo sert à rien pour Balla Gaye sert rien pour Sa Thiès rien pour Ndigal dama lay wax rek sert rien pour euh, fils de Balla Lamine Golo lan la leen mën apporter lan du ci état de physique munuñ cee wax diététique munuñ cee wax du coach boo xam ne nii coach euh, mystique la lan la mën nañoo expliquer coach boxe du xamul boxe jàngul boxe amul niveau donc du coach daa yàgg géejawaay rek gaa yi dox dox ci njëkk ak rek teg ko fi loolu kese la hmm? waaw waaw du leneen de loolu doog la moom moo la gën a xam ne du coach ndax boo tey ndax nag man tey ku taxaw ne ma coach bi dinaa laaj say diplôme de ba pare amul coach diplôme bo jàngee ci wolof <laughs> ça veut liñ koy jàngal ci français ci coach na taxaw wax ko ko xamu ko boo ko dee ay anatomie ay lii mënu laa xamul sax lu mu tekki kon ku ko jàngal bool coach wolofal moo ko jàngal bu dee Sénégal daa am coach wolofal nañ ma wax. xam na lii la gën a bu ko si tànnee dina ñëw ci live bi. na ñëw ci live bi xam na ni du ko suuf xam nga langaamu ci kaw nit naan sama mbër sama mbër bokkut ak coaching loolooy wax coaching dafa am rek moo ñoom ñooy yàq turu coaching yi tey Sénégal boo gisee wax respecté wuñu ay ñoom coach AB respecté wuñu yenn coach yi yëpp lan moo tax genre Lamine Golak yi ak genre yenn coach yi ñu naan coach te xamuñu coach amuñu diplôme muñu coach tojuñu fenn mosuñoo coach sax équipe de football loolu am na solo. loolu am na solo lan moo tax ñu fay bàyyi Lamine Golo dem ci coach gi posé nga question mbër mu ci am combat bàyyi coach am bañ naan mooy coach bay toog ca chaise ba dem France wala mu dem ci coach gi posé nga question boobu. waa loolu tamit jaaxal na ma. waaw kon coach boobu lu muy jariñ xanaa yor serviette te naan la mbër yaa ko man mbër yaa ko man loolu rek loolu ngay répété journée bi yëpp <laughs> mbër nga ñëw fekk Balla Gaye bu tax nga ne ko mbër dàpp ñu la ci gàllaaj

en wolof ak nit ñi. Mm-hmm. wax coach Lamine coach coach. coach coach Gabon ah i coach Ali coach pas pour rien bakari nek fi di wax te gars parce que nak buñ tégué level bi ba level bi mm-hmm. niveau buñ niveau ci parce que exercer wuñ de plus fa lañ kon kenn ku ne coach AB xam nañ ne ci walum physique dalay jox li nga soxla mais ci walum musculation da la jox li nga soxla ci walum boxe xamuko lolu loolu loolu gis na gis naa coach AB bu soxla musculation ak cité day dem ci maître boulot. merci beaucoup donc day leral ça veut dire coach jabo ci walum boxe dang koy am ci walum judo dang koy am mais ci walum physique est-ce que dang nga ko am déedéet c'est pas un coach préparateur physique mais domaine bi muy domaine bi muy joxe. am na benn physique bu différent ak coach préparateur physique te Fadam loo ci xam gis nga mbër mi lekk gi muy lekk day dépendre ci entraînement am physique bi muy des dinaa wooyu Lamine Golo dina seetaan lii te bu ko seetaanee dina ma woo. ngeen ànd ngeen daje yéen ñaar ci live bi. amul benn problème. jërëjëf ko suba. man xëy na yow suba suba soxla naa la suba soxla naa la suba soxla naa la. ci diggante Quench ak ki nga xam ne nii mooy Lac Rose. waaw loolu am naa ci lu ma ciy wax Quench Lac Rose. suba dinaa la xaar à part bul àggal bul laal bul laal bul laal bul laal ngir yàlla yéen bi rek ba suba jàmm. jërë ngeen jëf gars yi. yàlla leen yàlla defal jàmm. jaajëf kooku coach Bakary Sakho la nekk coach bu mag.